شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب ñoom ñoo ànd ñoo ànd parce que yéen a dafa arrangé. dana mm-hmm. baax. la ko waxee woon rek. ñaar benn benn ngay jëfandikoo léegi xam nga digoon naa sa mbokk mi tamit moo nekk. mais comme moom ñett laa yoroon. ñaari ngay jël beneen bi suñu toppatoo waatee danañ ko toppatoo. dégg nga ok ngeen defal ñu maanaam kooku benn dana ko avancé no waaw kii moom bu amoon benn ne ñaar moo koy gënal. amiin amiin amiin amiin amiin di nga ci mën a dox. kon alhamdulilah yàlla baax na yàlla na yàlla sax li nga ñëw delluwaat. loolu rek mooy baax na sax. ñu ngi wax yàlla lii moom. Mm-hmm. moom ci doon jàppale. ba mu fi jógee ba léegi dara set dafa des fii lool lool lool lool waaw waaw waaw waaw waaw waaw sant yàlla. si wax dëgg yàlla. moom normal na. mu normal na wax yàlla. bi nga xam ne lii moo tax. di jàppale yàlla rek. waaw. waaw. waaw. amul solo mën ngaa toog di toog da ngay toog ci toogoon ah li ma wax yàgg na waaw dañ ko def yàlla moom dana mën a baax yàlla léegi boppam bu baax yàlla moom dana baax yàlla itam baax nañu yàlla fay yàlla bu dee sonn yàlla yàlla fay yàlla yokk mën wala boobu léegi suñu kese amul. waaw boo koy bëggoon suñu yëngu ko. dëgg la soxna Sango Kola ma ko. soxna Sango Kola ma ko. dëgg la yàlla gën a. léegi kon. yàlla suñu borom rek. suñu borom nii la ko dogale. kenn ki da koy ñëw rek. waaw bu ma leen topp dogal rek. incha allah mu topp topp. ñu ne xam naa ne dinaa ko jéem a def pour yóbbu moom moom benn la ne. incha allah. moom ci kii gis nga ko mu nga ñëwee. sant yàlla di ko yoroon di kala kala ji balaa ji bu demee man moom. balaa sama xel di dara mu ñëw seen bu ñu siwul rek. ndax xam nga yi wóorul. na leen yàlla fay waay. kii damaa jaar ci buntu. sama yaw bi tey. fekk mu toog ma leen laaj. nga xam amul ci kenn ci yéen koo xam ne dina ko soxla ak mel noonu. ci la ma xamale ni moom la ko soxla ak soogaay beeg yooyu. ci la ma waxee sax yow borom kër yaa ngi nit ñi ci benn di ko suulee yooyu. wala sabab lu ñu ji waaye. Euh, ci géej ci wàllu woote ci wàllu lislaam dañu faral biir nag day ànd suñu bi sallallahu loolu la mas di bu ñu masaan a am lu fii la koy jox ci suñu biir nag am na ci ñoo xam ne suñu borom nattuñu leen mënuñoo doon ñoo xam ne seen i loxo moo am jafe ñoo xam ne mënuñu gis léegi nag ñii mënul dox ñu mën a dox rek dem mën a dem di leen ñu mënul gis it mën a gis lu loolu nag ñun yàlla dogal ku mu ñëw am am boo xam ne dinañ mën a jëndal ay chaise di ko jox ñu ko mais ñu waxtaan ci ay mbokk bi ñi nga xam ne xëy na léeg-léeg nga gis koo xam ne dina bëgg def ndimbal nga doo xam fu ñu koy awale wala nan la koy defee ñu xam ne kat ah gis leen kat mbokk moo xam ne soxla na chaise bu ko amee dana mën a faj ay aajo ñu lijjanti léegoo léeg ñu cotisé ba am daal di jënd chaise bi kenn léegoo léeg sax am kenn koo xam ne day wax ne naa jënd chaise bi yëpp jënd ko dem kenn bu ëllëgee ñu gis keneen ne ah am na ko soxla chaise ñu cotisé waat ba am jox kenn buñ gisee koo xam ne doxam xaw na mel bi ñu wut beeke lijjanti ko jox loolu daal moom mooy jëf bi lii nag benn soxna moo moo ñu mas a woo benn bis ñu waa am na fi chaise ñu ko bëgg a def di gis ak comité wax yàlla dogal ñu jot chef bi moo nekk bii kon ñu ngi ko soxla alhamdulilah loolu laay profité di ko wax ñëpp képp koo xam ne noppi nga allah noonu lañ koy doxal ngeen bañ ñoo fàtte ci ñaan ngeen bañ ñoo fàtte ci ñaan yàlla suñu borom sàmmal leen boppam yàlla sàmmal leen boppam yàlla sàmmal leen boppam seen i aajo yi yàlla bu mu taxaw benn loolu daal mooy yitte bi bu soobee suñu borom daal bu ñu ko ñaar yéen bi naan bu ñu amaatee daañu leen di jëm ci yàlla ko baax loolu daal moo doon yitte ji. kontaan nañu bu baax a baax. ñu yéen yàlla yitte bi yéen yàlla yàggal. amiin yaa rabbi yàlla yàggal taxawaay bi. amiin yéen moo jëm yàlla nga ko eggal jàmm. amiin yaa rabbi yéen a jëm yàlla ko sàmm. amiin amiin yaa rabbi. waaw yàlla bu ñu ne taal yàlla bu ñu ne taal. amiin amiin amiin amiin yàlla ñu tudd. amiin amiin def na ñu jëm sàmm. baax na jërëjëf. jërëjëf kon bi mu ñëw def. baax na. شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بال